Hello everybody, bonjour amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Ce matin c'est à nous. C'est avec un réel, immense, un agréable plaisir qu'on vous retrouve sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Il est 8 heures passé de voilà, une, deux minutes, trois, ça dépend de chez vous. Ban heure ngeen régler seen montre aussi, il fallait bien régler parce que zéro minute moo jot fii. <laughs> Maa ngi nuyu dem ba Gambie du nuyu mboolem Gambien ak Gambien bu nuy seetaan <laughs> surtout Damba. Gaye Ndioro Basek Bàcc Gaye Ndioro Alassane mi nga xam ne Gàmbi <laughs> YMCA bi yow yow jaaraloo ko yoon yow <laughs> daa ba sama xarit bu baax mi nga xam ne ndeysaan Pa Diagne sa xarit la waa Gàmbi yi ñuy seetaan yëpp dañoo am suñu collègue boo xam ne Pa Diagne c'est son ami wala <laughs> comme ça daal woyu rek Rokhaya woyu nga woyu nga tu n'es pas bien tu n'es pas gentil Seynabou def. Seyna mu nag xam nga affaire paajaañ yi. nee nañ mu ma gëstoo doon may rey tey <laughs> ndax xam nga affaire paajaañ yi. xamoo ko. kon yow xamoo affaire paajaañ. dégg laa ci kon tu perds des choses toi. je rate des choses. non tu as perdu beaucoup de choses dans la vallée <laughs> vallée foulée dans la foulée. après nga expliqué ma. après naal la expliqué. ah waaw daal en tout cas xam naa ne ku baax la ci réew mi. Mhm. ñàkk xam paajaañ daal wóorul. <laughs> noo def ak coono. maa ngi sant Pape. naka sa daa. dafa mel ni da ngaa a yeewu. musuma teere yow damay damay jàmbaar lu nii rek. naka sa sa kii démb. en formation bi. Hmm? ah eh, émission bi. coow lu ne coow boy rappeur yi daal di wax lu ne rek. Hmm. <laughs> maa la wax lii. Hmm. naka mu yaa ngi cool. maa ngi cool maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne saa ñu yeewoo dañu ànd ak ñun sur la première chaîne de télé privée bu Sénégal rawatina ci seen matinale ce matin c'est à nous Pape tey euh, ñu ngi ci mardi alors comme tous les mardis euh, lan mooy doon tey waxtaan bi. Euh, mardi bu jot dañuy beral pàcc wàllu xam yoon. loolu la ñuy woowee code fii ci émission bi El Hadj Malick Cissé moo ci nar a waxtaan nekk kenn ko xam ne mu nga ca mairie bu. Euh, fële Barthélemy Dias fa mu ne. Mermoz Sacré-Cœur ndax Barthélemy Dias moom dafa mel ne moom it meereem ba ñu ngi koy bëgg foqati ci loxoom loolu moo waral tey El Hadj Malick dina xool ci wàllu yoon ak yoonal loola leen nar a am nan nañ ko mën a jàngate ci wàllu yoon bu ñu ci jógee ay satu Diop taal dina xool naka la ñuy def ba ñun suñu situation économique mu càmbaral ñu ko ndax suñu gafaka li ciy dugg bis bu nekk ndax croissance moom mën nañu wax ne yokk na 1 pour cent wala 2 waaye bu ñu yeewoo laajtee ndox ñaata la ñu fay facture ñu ñu koy wax courant bi di gën a seer ba tey day mel ne développement bi amul fenn fu mu feeñ ndigum ak ci ñun ñu mën a def ba gën a xamanteeg suñu économie c'est avec Aïssatou Diop Tall elle va y revenir avec Abdou Wele si je ne me trompe pas ñu daal ciy toftal li nga xamante ne ni moom moo di euh, les avancées de la nouvelle technologie avec Ibrahima Thioy qui euh, vient nous en parler tous les mardis et juste après vous aurez Ziggy Ziggy Marley ou Ziggy fay en tout cas il euh, dit que c'est pas Faye Birame Penda Wagan Faye Mbayakoor il va recevoir Thiané Diagne jour J <laughs> nga loola kooku mosuma koo gis Thiané Diagne jour J nii xam fa laa koy déggee hmm. si booyu Viviane bi Thiané Diagne jour J bàyyi naa la yàlla tu <laughs> donc je vais la voir aujourd'hui <laughs> je vais lui dire ça. di nga gis di nga gis tey ku ku raffiné de. maa la wax lu mel dafa raffiné eh? rek nga gis benn affaire ak <laughs> feu et pour terminer il y aura la généreuse. oh my goodness. Ah ah. la très généreuse Koumba Guissé pour parler des astuces mhm. et puis surtout la chaleur qui fait au Sénégal mais c'est abusé grave. waaw ñaari fan yi moom tàng na. mais les la chaleur là c'est c'est comment Aïcha ce que nous allons faire c'est vous avoir dit le sommaire de cette émission bienvenue dans ce matin c'est à nous bu ñu nee saa ñu ànd ak Seynabou mu jukkil ñu xibaar yi en image et juste après vous aurez la revue de la presse sénégalaise mais là maintenant Seynabou xibaar nu. Aïcha Aïcha mu ngoog ginnaaw bi ñu ko gërëmee moom Pape Sidi yegg seeg yi ci xibaar yi daal di koy euh, doore ab euh, ak ab euh, étude ñeel nag lu jëm ci financement organisation société civile yi ñoom nag daal nañ ko publier ni ki démb boobu lépp rapport nag la nga xam ne moom la fësal ci organisation société civile yu nekkee file ci Sénégal mooy nag daanaka dara nekkul ci seen i poche loole li ko waral mooy ni nga xamante ne noonu la ñu dépendre ci ay kon financement yu tukkee ca biti réew te nag yu dem lu jëm ci financement yooyee laata ñu ci jot dañuy kon daw ba sonn rawatina itam ñu yombalal leen lu jëm ci euh, jote ci yooyu lépp financement ndax ñu mën a doxal ñoom société civile bi ci lu jëm ci seen i ay activité étude bi itam daal dinay wax jëm nak ci ana lan moo waral kon yooyee jafe-jafe ñu koy faral di jànkonteel waaye itam ONG yooyu le ana fan la ñuy jëlee seen i koppar El Hadj Malick ci àndal étude bi ñu génne jëm ci financement société civile te programme d'accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile ak cabinet général amal ko génne na ay manquement bokk na si yéexaayu procédure jëm ci wàllum financement jaare la ko ci PTF yi di partenaires techniques et financiers organisation yi jóge bitim réew muy européens yeex américain yi bu ñu waree financer Sénégal day fay am ay ONG yu jóge ci dëkk yooyu ñëw jël xaalis bi fii ay miyet jox ko organisation yi nekk fii ci Sénégal loolu mooy problème. dañu nekk tey ci benn étude pour xool euh, na financement organisation de la société civile parce que umpule woon leen ko financement bi léegi dafa xaw a jafe. loolu nag du ci Sénégal partout la xaalis amatul su xaalis amatul nag ay pexe dafa war a am ci loolu. lañ nekk di réfléchir étude nag dafa baax euh, réflexion scientifique la boo xam ne danañ ko exposer pour ngeen am résultat yi. directeur exécutif bu ONG 3D yamul foofu mu ni suñ deful nank organisation yu si mel ni RADDHO di rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme dinañ fi jugee lu ko waral mu mooy amuñu ressources humaines de qualité naka noonu fàttewuñu doole gu ñuy jox OSC yu nekk ca noor. dañuy jël euh, corsé ni nga xamante ne noonu la ñuy jotee ci financement ba nga xamante ne organisation yi fi nekk. dañuy am problème lool pour mun ci am accès dafa mel ni dañ ko tënkee na nga xamante ne ku dul organisation yu jóge ci dëkk yi ñuy jóge ñoom financement yi jóge doo ci am loolu problème la moo tax organisation yu bëri ñu ngi disparaître wala ñu ngi am problème mu dund yoo xam ne c'est des organisations militantes loolu mooy problème bi wax ji wax ji loolu la. organisation yu yëngu ci wàllum société civile di am ay jafe-jafe jëm si wàllum financement yu ressources publiques loolu la étude bi génne waaye kenn mënul na table ni administration bi dafa soxla société civile. lu am ci société civile daf ñuy intéressé parce que ministère de l' moom mooy assurer tutelle des ONG donc ministère bi li muy def mooy accompagner donc à chaque fois bu ñu gisee ni société civile bi soxla na dara surtout ONG yi nga xam ni seen mooy ministère de l' seen wet pour accompagner leen ba tax ñu gën a mën a euh, en tout cas yëngatu gën a mën a taxawu askan wi ci lépp la nga xam ne soxal na leen. étude bi di recommander gouvernement bi collectivité territoriale PTF yi di partenaires techniques et financiers ak entreprises yi ñu xoolaat bu baax a baax seen taxawaay ci wàllum financement naka noonu ñu wàññi yàggaay ci wàllum génne koppar gi boobu lay xayma di wane ni secteur yi xamante ni moom la PTF di partenaires technique et financier di financé bokk na si sécurité alimentaire santé éducation ak lépp lu jëm ci wàllum ñàkk bi El Hadj euh, Malick euh, Cissé ñu gërëm ko bu baax ci boobu lépp élément daal dee wax nag fële ca diwaanub euh, kon Jawar ak jamaas askan wa fa yeewoo ci ñaare gox yee ñoo daal di daje ngir amal ab doxub ñaxtu la ñuy ñaawlu bokk na ci kon seenu dëkkuwaay ak lépp lu nga xamante ne jëm na ci dundin na bëgg na ñoŋ daal na fay ñàkk kon loolee waxal ba ñu daal dee wàcc ci tali bi ngir kon daal dee addu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorités yi ñu gestu leen amalal leen foofee lépp lu nga xamante ne jumtuwaay la yu gën a mën a doxal seen ku nekkin ci yooyu les gox di jawaar ak euh, jama bokk na itam ci leneen lu ñu xamle mooy rek ne bu fekkee ni autorités yi gestuwuñ leen danañu gën a taral li nga xamante ne moom moo di xeex bi ñu teewlu ci musa Diagne Abdou Boye mbay mi dox na fi lool gis na ni nag ñoom li ñu gën a wax rek moo di yoon bi ñu defaral leen ko nañu jigéen ñi la lee soxnal moo di ñuy war am doom bu mën am doom bu nawete den di ko bay baylante di ko wàllante ci ay saret ba bu rëccee rëcc na bu doomam rëccee rëcc na bu rëccul mu yem bi am na fi ñaari yoon benn bi la benn bi góor te nun duñu bokk ci réew mi ci li nun li ñuy dugal ci réew mi nun waalo waalo yi li ñuy daj suñu góor takk nañu seen digg di liggéey nun jigéen ñi nu topp ci sonn nunu ba bëgg a dee te amaluñu Sénégal askan wi nga xamee ni nag ñoo nekk ci commune bu rong ak bu Diama yëkkati waale seen kàddu tamit jëmale ko ci yoon yu métti yi nga xamee ni ñoom saa sunu liggéeyee ba pare ngir génn dafay doon ab jafe-jafe. di ko toggee ndax oto yi mënatuñu dem. di jël ay bureau di ko daggate di ko def ci daal yi di ko toggee mënatuñu jëndi këriñ mënatuñu jëndi gaz. ci feebar dañuy sonn loolu jànnoo ngee ordonnance ma am ñaata ñaata fan la ko borom amee ñeenti fan yàlla bëgg ko génne mënul dem ndax taw te nag bu fekkee yaay faj sa bopp boo amee route boo jaar da nga dem jëndi sa ordonnance dellu si mais boo amul route nooy def su tawee vélo mënul dem oto mënul dem sareet mënul dem jafe-jafe yooyu nag tax na askan wi nga xamee nag ñoom ñooy euh, yeewoo fi nga xamee ni moo di ci jawaar ak li ko wër ñuy wax nag ni ki nga xamee ni moo di njiitu réew mi war na nag ñëw jàppale leen ci nu mu gën a gaawee bu deful ndànk nag daanu indi yeneen pexe xeex yoo xam ni dina metti lool ci ñi nga xamee ni rek ñoo ŋànk nguur gi. Moussa Diagne ñu jeexale euh, xibaar yi ak li nga xam ne moom moo jëm nag ci euh, ni ki ëllëg ni ñuy màggale feetub euh, kon Achoura ñu gën koo xam ci xarit loole nag bu jotee rek dafay fekk ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di jigéen ñi dañuy faral di dem ci marché ba wuti ndugg ngir cere ba nga xam ne moom la ñu war a togg jamono ji nag marché yile daal nay fees del ak ndugg bu jaaykat yi jàppee ni kon njëg la yomb na ña nga xamante ñoom ñooy ndugg itam gisee Euh, nu ni mel wax ni kon euh, mbir yooye faw rekk ñu wut ko ndax mënta ñàkk ci euh, li nga xam ne moom moo jëm ci bisub tamxarit gi Awa Thiaw moo doxantu woon ci marché ñu teewlu ko ku wax Achoura fii ci Sénégal wax ci cere ci waajaayu bés bi ñu gën a xam ci tamxarit togg cere doon li ci gën a fës ca marché Tilène bu Médina dem ak dikk bi tembere lool lépp ngir waajaayu bés bi lay jar ba léegi waaw lay jar am na yi nga xamante ne ay repro la comme genre façon boobu 5000 euh, lay jar mooy bu 3 kilos jëm si kaw quoi. ñoo mais ñun tamit am nañ yi yi 25 yooyu moom ñoo gën mag. bés bu wute lool ak yeneen bés yi ci li muy wante client yi ñoom ni seen xel dal na bu baax ci njëgu yàpp gi ak ginaar yi. indi rek loo bëgg di nga am. mais prix bi dina yokk moom lépp dina yokk mais moom sant yàlla rek. ginnaaw loolu duñu wax cere ndawal fàtte légume même bu fekkee ni client yi jàpp nañu ni dafa manqué jaaykat yi ñoom ne am na ci jamono yi ñuy waajal bés bi. non oh non parce que même avant tam xarit bi moom avant tabaski bi ba léegi moom légumes yi dafa cher moom ma ne ko ba léegi dafa cher xañ na nawet bi moo tax quand même. moom macha allah alhamdulilah rabbil alamin bi yoon yokkuñu wax dëgg yàlla. tamaxarabiyya daa fekk yéen léegi am na macha allah si loolu bu fekkee ni yi tamit njëgu njaay bi yokku na taxul ñii di sénégalais yi daañu daje sa marché ya ngir mën a paase fête bu neex bu tam xarit. Awa Thiaw ñu jaajëfal ko mbokk yi foofee la ñuy yemandeek yéen ci lu jëm ci xibaar yi dañu ànd ak Pape Sidi Fall yéex li gën a fës ci yéenekaay yi. am na benn jànk bu ma nopp wante yaayam buguma dara hmm? am na benn li nga yor ni sama big la andi foog fekk taabalu Seex Jaabi laa ko sàccee maa fa teg bi may bind sànq qui a deux bics s'il <laughs> nabu sa yu ma ñëwee seen kër sa yaay daa xaama xaw ma lu tax <laughs> ñu pare ma door a yeggale <laughs> vous avez vu j'ai une très belle voix merci je non calmez-vous <laughs> c'est pas la peine de vous exciter comme ça on démarre la revue de la presse sénégalaise avec le quotidien parrainage modèle de collecte aux couleurs libérales le PDS fiche dans le vide titre le journal. lu jëm ci euh, collecte euh, parenage euh, bile loolee le quotidien yéen kaay daal di xëyee tey ngir wax nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoom kon fare ci parti démocratique sénégalais wax nañu ni kon modèle collecte bile dafa daal di rek kon nekk ci couleur libéraux yi kii di Ababacar Fall wax na ni arrêté bi jamono ji dafa daal kon noppi ci mbir mi libéraux yi nag ñu ngi kon. joxe li nga xamante ne moom moo di seeni justification maanaam daal euh, modèle bi ñu am ñoom dafa bleu jaune voilà modèle collecte parrainage bi daal waa parti bi dañ koo def moom. da ngay seet loolu rek. Dakar Time pour ses révélations nous informons en exclusivité Karim Wade fait ses valises pour son retour à Dakar la peur s'installe chez Macky. Dakar <laughs> Times moom la daal di xëyee ni ki tey wax kon ci li nga xamante ne moom moo jëm ci élection yi ki nga xam ne moom moo di candidat bu parti démocratique sénégalais Dakar Times du ñu xamal ni jamono ji euh, mi ngi daal di yegg si file ci Ndakaaru ba tax na kon euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo far ak njiitu réew Macky Sall njàkkare la ñu am. jamono ji Dakar Times ñu ko wax. Que se passe-t-il à la une de Rewmi Quotidien parrainage Karim alerte sur les faux collectes de parrainage à la une du journal. Mm-hmm. moom li nga xam ne moom moo di euh, Karim Meïssa Wade li nga xamante ne nag moom moo jëm ci parenage bi dafa jàpp ni kon wala dañu jàpp ñoom ñu far moom ni am na ñeneen euh, ñuy wëlbatiku di wuti parrainage. fekk ni euh, ci turam te fekk ni du pour moom ah. donc moom wax na ci mbir moom mais wax ni kon euh, mi ngi euh, yëglu ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ci APR kon dañu jël ay dañuy mbubboo woon ni daal Karim Wade yoon ni ngir ñu wuti li nga xam ne moom moo di parrainage. da ngay seet loolu rek. mouvement de soutien 24 heures nous en parle à sa une au président sortant Cheikh Tidiane Gadio renvoie l'ascenseur à Macky à la une du journal. moom Cheikh Tidiane Gadio ginnaaw nag loxo wala bokk tekki bépp teggi bépp tuuma bu nga xamante ne yoon bu réewum Amérique daf ko ko tegoon jàpp nañu ne nag jamono ji dina kon delloo li nga xamante ne moom la ko njiitu réew Macky Sall defal loolee vingt 24 heures yéen kaay ñu xamal wax ni kon ki nga xam ne moom moo jiite li mouvement bi di luy jot jot na bu yegsee ci Sénégal dana dem ànd ak xam ne moom moo di njiitu mi euh, Macky Sall loolee kale nañ côté wax nañ ci ba noppi ay kaddu Cheikh euh, Oumar di DG bu COUD mu mel ni nag kon jamono ji moom Cheikh Tidiane Gadio dafa euh, reconnaissant envers ki nga xam ne moom moo di njiitu réew mi Libération à sa une nous parle de maître Nafissatou Diop sur la sur les accusations de hold-up au soir de la présidentielle l'opposition vit au monde des coris di maanaam pettaaw maître Nafissatou dañuy gis li nga xam ne moom moo tax na muy xamle jamono ji opposition bi li nga xamante ne moom nisme politicien jëm nag nag moom mooy euh, nas ay mbir ngir kon euh, élection ya daal di naqara ngi nii di la de roi et de guider leur pouvoir <laughs> musiba naaru laay yenn ci ay ni gis noonu euh, ci xët ji nag jàpp nañu ne yéen possessive lañ humilié harcelé affamé le Macky titre le journal. dina daal di am ci ñett ñi nga xamante ne ñoom ci daan gaajo Alioune Soumaré bi ginnaaw nag ñu nekk ci ay jafe-jafe ba noppi. parlons de politique en panne. daal di fësal bokk ci ñoom cardinal Yaspin mu mel ni nag ñaar ak yu ni mel ba tax Sud Quotidien ji kenn gisu leen kenn déggu leen ci li nga xam di société bi. la société de. AIBD Mbour AIBD. ak lu jëm nag ci euh, Sénégal la njiitu réew mi Macky Sall daal euh, société bu ñu dippee la une parle de la mer Yora mu loole nag ci lu tollook euh, juróom benn milliard ci suñuy koppar lépp nag ngir ci nekkinu askan wi foofu daal di ëpp juróom est te tàmbali nañ ko sax ba noppi loolu habitant kon jamono ji mbir moom dina leen fukk ak ñetti kilomètres ci réseau foos yi parlons toujours d'assainissement et de propreté à la une du Vox Populi cocktail d'eau usée d'eau pluviale dans les rues. ça à la Médina face Gueule Tapée. loolee moom moo jëm ci euh, na nga xam ne noonu la ñuy dundee ñoom askan wa yeewoo foofee. Ah, euh, ca commune bu euh, Médina face Gueule Tapée loole nag Vox Populi moom la xëyee tey wax ci ndox mu salte ba nga xam ne moom lañ fay nemmeeku jaxasoo ak ndoxu taw yeeg taataayeeg. ni mel ay égout yi nga xamante ne nag amul benn yoon euh, tëjukaay loole la ñu nemmeeku ci fépp euh, fële ca se Assainies ak Cambérène nag euh, loolu itam moo fa dal de am ndax canalisation yi dafa daal di fatt ba ndox mi yëpp jamono ji ci yooyu lépp quartier itam mi ngi ci mbedd mi. Un autre problème se voit à la une du journal Source A après la radiothérapie et l'appareil de mammographie de l'hôpital Aristide le Dantec place à la panne du cancer. du scanner du scanner ah loolu c'est comment. ki na ginaaw mbirum radiothérapie ki dem moo njaay ñu wax ni machine bi nga xam ne moom mooy def enquête à ça une parle de l'éducation épaisse loolee moom moo jëm nag ci euh, école niki kon euh, ñoom ñu jug loolee nag nekk jafe-jafe ndax jëm loolu la yéen a ci euh, école bi ñeent loolu ñu di waa e ñu ngi wax ni ci la kii benn fan. la tribune nous en parle à sa une. elle démantelée. monsieur Bon. góor wala bokk ab réseau bu tribune moo ñu xamal nag. du l'information lesbienne arrêté. lesbienne. ñaari lesbienne la ak nag dañ ci doon def ay euh, mbir nag vidéo ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, leen ni ki ba mars jor rek ñu ne leen dem leen. l'observateur nous plonge dans l'univers gestion du basket sénégalais. ça ça ça crève les si ici. depuis jamono lu jëm ci basketu Sénégal. Massoud Traoré ak ki nga xam ne moom moo di. dugalati loxoom ca poche. quand même góor gi loolu compétition bu amee moom il mel. ñàkk ñëpp kii nga xam ne ñoom ñoo di. waaw ci ay leeral waaye daal jàppal ni muy. tuuti jéem a jàppale gaynde yi. sallallahu alayhi wa sallam. góor gi si jee góor gi si jee mais bon comme mais yow ndante nga booy sama nu garaaw man bëggoon naa nga jox stade nu sport entre Salah Firmino Magal s'interroge nee na c'est Mbappé moom dëgg la kan euh, moo ci ban tirgoon xaw ma leen ñu ngi nii daal <laughs> ca Liverpool benn but ah joueur la woon eh, eh. jërëjëf maa ngi koy sant bu Amérique rey leen <laughs> record à sa une par Sadio contre Neymar. jotee loolee la ñu naan légèrement Sadio contre Neymar ñaari joueurs yooyu voilà. Jabong dévoile les secrets. moom gaynde Géejawaay gi force ak lan mooy sa faible Jabong moom nag daal dina koy bala. xam ne dafa wax ci biir góor jigéen mu ne ma Pape Sidi bàyyil wax waxu góor jigéen ñi parce que après dañ lay sosal <laughs> ma ne ko luñ may sosal mu ne mun nañu wax ne ñoom yow si ñoom nga bokk. <laughs> loolu moo tax dangay ragal doo si wax waaw léegi sosal leen ma man ñëpp xam nañ ne du dara. waa léegi yéen ngeen foog na lii dëgg la ci réew mi Sénégal mii ana moom mu ngi nii journal baa ngi ay ngóor jigéen daal la ñu jàpp léegi ci réew mi ñuy nekk fii nii di waa lii lan la après ngeen bëgg ñun ñu ragal leen wala ko waxee ñu ne non tem am na kenn koo xam ne dafa ñeme internet bi day génn defal la vidéo ne la yow tam si ñoom nga bokk c'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas envie d'en parler wala dañ lay woo apparemment di la menacer naan mm-hmm. maa ngi xa waa leen ma <laughs> woo ma woo leen ma dëkku Serigne Touba Seydi Hadj Malick ba ñuy liggéey yéen a ngi nelaw ngeen dem jël seen yu bon jëlee ko feneen ñëw indi ko ci biir réew mi bu ngeen ko defut si kanamu ay euh, xale yu ndaw ci Sénégal et dañu dem bëgg inculper culture boobu le jeune sénégalais à partir des séries des films des novelas dañu dem ba banaliser le ce qu'on appelle euh, les actes contre nature ba ñu ne léegi non loolu c'est pas grave c'est c'est pas de leur faute on les a tellement mis en valeur par les réalisateurs que quand tu le regardes tu te dis non ndeysaan c'est pas de leur faute c'est quelque chose de naturel il faut laisser s'aimer comme ça je vais renvoyer la réplique de Jean-Claude Van face à une dame qui défendait les homosexuels si tous les hommes se mariaient entre eux comment on allait faire pour euh, redorer le blason de l'avenir c'est ça que j'ai envie de dire am xam ne xajul ci mim réew ngóor moom wax dëgg yàlla chaque jour nga dégg léegi journal yi xëy di ci waaw am na màkk mais bu bu fekkee dafa am màkk bu dañu dañu ko war a légaliser waaw ah, lu bon bu ko ñëpp doon def du tax mu baax lu baax bu ko ñëpp bàyyi woon du tax mu bon Pape Samba et puis sa analyse yu péjoratif yi moo tax léegi dañ naan non comme góor jigéen noonu am na fii am na fii mais c'est pas ça la question la question c'est que waruñu seetaan loolu di proliférer wu fii ci Sénégal. Mm-hmm. ñu jàll ci leneen <laughs> balaa ñu naan ma coupeel balaa ma wax léegi bëggoon naa sax jàll ci leneen. Euh, jàll ci euh, li nga xamante ne moom moo jëm ci parti démocratique sénégalais ak coow li juddu ci seen euh, bulletin hmm. collecte parrainage bi tamit waaw kon je pense que. ginnaaw bañ la nuyoo ba noppi mais bëggoon naa wax ci parce que man dafa xaw a jaxasoo ci sama. ci sama bopp maa lay nuyu di nuyu ah. la ndax maa gis nga <laughs> je suis là. man je pense que mbirum parti démocratique sénégalais ndax soo xoolee depuis samedi journaux yi ñu ngi koy wax ndax ñoom nee direction générale des élections dafa génne fiche ministère de l' intérieur maanaam. Mhm. génne fiche boo xam ne mooy fiche parrainage. bokkul ak ñoom waroon nañu ñooy ñii ngi vraiment lii. est-ce que itam ni amul. Euh, yow dañ génn fiche. fan la wàllu mu jékki. di nuyu spectateurs yi nga xam ne yal na suuf seen. lii loo ci xam parce que office yi dafa taal pour moom dafa bari quoi ak Sadio Mané ni dama ko mesuré foofu moom Barthélemy Diaz il faut bëri ndax Barthélemy Diaz heure mu wax si appel bi dañ ni li jàpp ni est que du xoolee appel du wóor di nuyu ñëpp ab si di émission benn boo xamante ne bureau loolu bëri na gëmoo ni loolu waaw euh, par euh, naissance plutôt or n'a rien à voir bëri nee nañ que Barthélémy ak rigueur donc li ko mujjee jugé teg ko ci feneen xamante ni quatre jours la nekk fii ci pourquoi c'est di Wade bi muy Ablaye Wade tey Barthélémy Dias di joué ci démocratie sénégalaise moo tax ki weccat te 30 euh, septembre incha allah xam nga Pape Sidi parce que boo waxee dëgg Sénégal dañoo fois boo waxee dëgg sax ñu ne da nga ñàkk teggin Barthélémy Dias def lu dul wax dëgg donc nag su jàpp ni les magistrats là sont des corrompus du ma ne ah, boo nee dafa wax dëgg kay parce que ay kàddoom loolu lay tekki en quelque sorte n'a jamais dit que les magistrats sont lan la wax exactement. Barthélemy Diaz lu mu wax dafa ne ci biir magistrature bi am na ñoo xamante lu leen exécutif wax ñu def ko donc foofu noonu moo ñu wane ni séparation de pouvoir bu waroon am. amul amul loolu nag dëgg bu wér péng la te kenn mënu ci dara donc nag su fekkee loolu dafa ko wax à sa manière. tamit ku nekk ak nu koy comprendre mais mooy lu am te ñëpp teg seen bët mooy exécutif bi day manipuler euh, euh, judiciaire bi. Euh. mais mais loolu est-ce que am nga si ay preuves am na ci ay preuves aussi taxaw nii mbirum Khalifa Sall exécutif bi moo ci dugal loxoom ak yooyu noonu. xam nga ñoo ngi ko condamné xam nga ñoo ngi ko condamné pour ñëpp a ngi ko ah, condamné foofu laay ñëw nii ñoo ngi ko pour justice ñoo ngi ko condamné plutôt pour discrédit jeté sur une décision de justice. exact am nga et non pas outrage à magistrat parce que foog ñu leeral loolu noonu ñu bëri dañoo jàpp ni dañ ko comme dañ ko condamné ndax outrage à magistrat il a été condamné pour discrédit jeté sur une décision de justice bu ñuy wax outrage à magistrat il fallait que Barthélémy Diaz ne magistrat bi jiite telle chambre wala tudd euh, nommément magistrat bi ne par exemple yow nga nekkoon magistrat mu ne El Hadj Malick Cissé mii mhm. foofu bu ko defee loolu la ñuy woowee outrage à magistrat te loolu amul moo tax ñoom dañoo écarté boobu noonu ñu ngi ko condamné si euh, discrédit jeté sur une décision de justice te décision boo xam ne Sénégal ñëpp ko discrédité mm. boo jëlee mën naa la siital ay tour yu dul jeex yoo xamante ci décision bi wax nañ ci mm-hmm. Sénégal koo tàllal micro ci mbedd bi mu ne la ah nu ñu jàppee Khalifa Sall nii wala nu ñu ko condamné teg ñu ko ci yoon donc décision boo xam ñëpp ko discrédité donc foofu yaakaar naa ni loolu war fa mën a am mais sànq am na laaj boo xam ne tontu la si de bi lan la appel bi conséquence bi mën na jur Barthélémy Dias toogaat ci kaso bi wala élection yi fekk ci kaso bi. loolu tam bi nga ko tegee ci yoon. Hmm. mënul nekk. lu tax mënul nekk. xam nga appel la de. waaw maa ngi ñëw xam nga appel la dañoo ko condamné woon ndax discrédité sur une décision de justice. Hmm. te yoon lu ñu woowee code pénal en son article 198 nee na loolu daan maximum bi nga la ci mën a jox mooy 6 mois. amende amende maximum bu ngi si si bu ngi la si mën a jox mooy cent mille francs ñoom fexe nañ ba jox ko loolu six mois ya ak cent mille francs ya fexe nañ tamit doon ko wax waxu grâce président euh, grâce mu bañ mu ànd ak dignité am ànd ak courage am toog ba six mois yi mat mhm. donc nag foofu bu nit kañ buy appel day appel pour xool pour xool nan lay mën a yokkee loolu noonu mhm. mais yow ki yaa ngi ko jox maximum ba pare na da ngay appel ci loolu noonu yaakaar naa dina xaw jafe wala dina. la loi c'est fait par les hommes pas l'inverse ah ouais, j'ai envie de dire quand on a arrêté Khalifa Sall on a eu le courage de Barthélémy Dias que tous les euh, jeunes sénégalais ont apprécié parce qu'il s'est dit que li am injustice la te dina ko combattre ci ni nga ko mënee il est pas sur le terrain di sànni ay xeer il est allé à la place publique surtout devant Badara Diop il a tenu des propos. Ah foofu lañ ko fekk arrêté ko. Mhm. mais biñ ko jàppee ba léegi yéen dafa mel ne seen lal yi ni mu nooyee moo tax bëggu leen a euh, défendre ko moom parce que c'est dans l'exercice de défendre. Ah euh, Khalifa fan ngeen nekk. moom mu ngi doon défendre Khalifa yéen ñi nga xam ne yéen a pas Bengal par exemple moom. ci rab ci kas excentré nga xam ne la l'homme. Bart day mais yéen aussi da waaw loolu am na. nañ ni moom soxla ci cigarette ku nekk opposition moom wax dëgg. assumé bi tamit mun nañ ko nangam. puisque leeral nga ku xam dafa tàmbali nag bu ñenn dafa xaw a Khalifa Ababacar Sall li nga xamante ne mu ne jamono ji que lu ma ci jot wax. y' a pas matière à débattre sur ça parce que loo xamante teguwul ci yoon. normalul les boobu ba léegi éducation Khalifa Sall doxul ci caaxaan le pouvoir kooku dañ ko may ay prérogatives yoo xam ne bu discret bu euh, dindee nit ci loolu wala bala tudd Khalifa Sall nekkatul maire di Khalifa Sall xamante ne bañ ko révoqué ba léegi loolu amatu nekk ci dynamique gu non pendant que ñoom boobu jàll ci leneen bon l'impossible nul ne kii toog la réew ñoo wóolu woon xaalis bi waroon tamit dañ joxoon baat ité fii sorewul moo jiita Dakar a été élu ne Macky Sall tam ba tegg ko ci place am loolu la jeex xalifa daf ko wan ni maa la ëpp doole mm-hmm. tegg fa fal xalifa su nekkoon ni man fu mu nekk falee nga ne xaar ma ji. émission ku. maa euh, ngi lay ziar. na euh, <laughs> ku sol saako. bëree du. doxalee waaw wàcc kii fii kii. am katu karoot loolu nekk. mën naa la kii. donc si c'est ADT Nabou ak téléspectateur 2 Sénégal rawatina seen émission ce matin c'est chaque euh, jour ñu ñëw di ñu seetaan tey mardi ma leen di présenter rubrique beauté ma nar a waxtaanee tendance beauté. ak forox gi ni ci réew mi tàngoor bi dinañ ci dellu si waat ci kanam ñu dellu ci waat <laughs> ADT ñu ngi ci mbiru euh, mairie Konaté dama bëggoon ñëwaat ci benn aspect bu nga xamante ne ndax tey yéen nekkul leen di tardé ci lu bëri mhm. ndax jamono ji ñu ngi leen téyal Khalifa Sall téyal leen ki nga xamante ne mooy Barthélemy yéen ngeen toll ci jamono ji ci wutub signature du moment où yenn candidat yi ku ci mel ne Ousmane Sonko tey nekk di def show ci seen kaw mën nañu wax loolu parce que def na fi lu nga mm. xamante ne benn candidat depuis 60 ba tey ba benn candidat defagu ko tey mu nekk entrée bu nga xamante ne ça a attiré entrée bu alléchante tey jii mm-hmm. est-ce que yéen voilà est-ce que yéen mm-hmm. tey jii loolu en quelque sorte damatu leen damay profité ci occasion bi di féliciter Ousmane Sonko ci euh, initiative yu mu jot a jël ci xeex bi wu nekk xeexu sénégalais yëpp. Mhm. donc ñun du ma wax waxu tardé parce que boo xoolee depuis 2012 ba léegi. xalifa bi foofu noonu. depuis boobu noonu chaque jour moo ñu waxu ay blocage projet. ñu jug pexem moo entouré juste pour te mais pas Khalifa Sall su la ñu jël parce chaque jour nga indi lu benn ko teg à terre. est-ce que tey ah, a ngi ci vocation tey mu ngi ci kaso bi. Pape Sidi Sakho député. waaw ah, mais nguur gi ak tamit boo loolu xam nga ko. mu présenté comme le cas eggaguñ ci prison bi lañ ko fàtte. ah la bokk boolewul ci liste yi parce que xam nga su waxee Karim Wade mm-hmm. ci Khalifa Sall Khalifa Sall mm-hmm. et article optimiste nekk ci kaso bi sax lu musul am en tout cas xam naa ni firaawoon na daal nee na Moussa këram lañ ko yoree am <laughs> tamit mën nañ ko génn nekk roi Barthélémy Diaz gis na Barthélémy Diaz il a maigri dafa feebar war a. loolu aussi. ba pat euh, ba pat. loolu loolu buy dund. boo ko mën a jaaxal. jaa ma di jàll na vite fait. alhamdulilah. que dafa jeex xamante il fait Barthélémy Dias xam ne or matin soir ñuy wax bon man li ma bëggoon wax rek sànq maa ngi dégg say kàddu da naan euh, jotagul te bu ñu seetloo xalifa Sall bu ñu ko jàppee ba léegi euh, jàppam bu ñu ko tëjee kaso yéen xalifistes yi da ngeen a waxoon doo leen bàyyi mukk ñu bàyyi ko kaso n'empêche mujjuwul fenn certes que vous êtes en train de mener un combat euh, pare wu ñu ñu tëj ko ñu condamné ko cinq ans pare bu ñu ci loolu ñu ñëwaat ne dañ koy révoqué al depuis boobu ba léegi gis nañ ne yéen ngi toog ay wax rek ngeen di wax te élection yi juste que ay mois moo ci des. ay ay cinq mois te depuis boobu ba léegi ñu ngi naan loolu dafa jotagul loolu jotagul est-ce que réellement aussi jotul parce que faut pas se voiler la face dafa jot instant bi ñu ñaa ngi euh, collecte seen collecte seen euh, signature ci parrainage bi est-ce que aussi yéen jotul ngeen xoolaat yeneen réforme yoo leen di def ba nga xamante ni dina leen leer ne di ngeen am certitude que Khalifa Sall dina bokk ci élection yi. wax ma rek soxna si lan la candidat présidentiel di def jamono jiite ñu ñun defuñu ko xam na ne ñoo ñu wax waxu parrainage. ñun ñooñu ci xam nga ñun nekkuñ ci kaso. ñun ci yeneen candidat yi nga bi. loolu quand même Khalifa Sall la. loolu la si gën a yemuñu. la si gën a garaawati parce que mhm. Khalifa Sall ci kaso bële mu nekk foofu la nekk di joxe. ay orientation ba nga xam ne tey ci kaso orientation xam nga. xalifa Sall saa waay nar fa toog. fu lu ma naan jot di Khalifa Sall. d'accord a qui me tient quand même Alpha Ndiakhla at génn ci biti est-ce que mën nañu ci terrain bi doon ko gis muy yëkkati ay kàddu yooyu ak position yu muy jël gisaatee ko noonu ci ci ci wàccaayub élection yi lu xale yi di wax wala mais nag prison quand même dalay xam ngeen ni c'est vrai yàgg na dugg kaso yóbbu Abdoulaye yóbbu na ko Kédougou mais est-ce que du su génnee du calme quand même nu mu koy waxee nu Barthélémy Dias di ko waxee laa koy waxee tey mm-hmm. nee na commissariat u Sénégal yëpp def naa ko kaso Sénégal yëpp def naa ko déglu ma c'est pas que dafa bëgg barrière bu mu wax ci benn plateau <laughs> ne Barthélémy Diaz na sa bat pas pour sa femme ni pour sa famille il se bat pour les Sénégalais mhm. quand je dis qu'il se bat pour les Sénégalais sànq da nga wax benn wax bu am solo te d'accord naa ci te ba nga ko waxee sama yaram dafa daw effectivement moo ñu prison man dama tëdd sama kaw lal sama lal bu nooy ñëw toog fii ngeen jox ma micro may ratatati moom moo ñu fële ne tëdd. te loolu noonu mu defoon juste pour xeex injustice. depuis 2005 ba léegi moo ñu xeex démocratie Sénégal tey yaakaar naa ne tey Sénégal bu eggee woon fii ci démocratie Barthélémy Dias amoon na ci. Euh, benn point boo xam ne teg na ko ci bu am solo. donc nag foofu du ma wax ni nit boobu noonu tey du xeex def commissariat yépp def. prison yëpp. c'est un combat en quelque sorte illégitime parce que Tanor ak ñi nga moom ñi diriger parti socialiste dañu gis ne yéen da ngeen rek di dal. parce que xamu li xew. vous n'avez rien compris c'est des jeunes qui n'ont rien compris au niveau du parti socialiste Tanor ba mu koy arrangé damay ñëw Tanor ba mu koy arrangé waxul woon loolu parce que ñëpp fekkee nañ ba 2012. Mm-hmm. Barthélémy nu mu taxawoo Tanor. Mm-hmm. tey jàpp nañ ni bu ñu demee ba di wax parti ñuy wax wax parti socialiste parce que ba kenn gëmatul parti socialiste moo nekk fii di xeex mhm. temps yooyu noonu Ablaye Wade moo yor nguur mhm. ban opposant nga fi tàmmoon di dégg bu sonal Ablaye wadd muy lan Barthélemy Dias tey nag du bàyyi ba tey bëgg wàññi affaire yi comme ni ñu koy waxee rek nu ko xale yi di waxee dafa nar a yokk cere dolli ñeex vous mhm. connaissez des collectivités territoriales am na xaalis mustuma laaj benn question pour euh, Daniel euh, Barthélemy Dias condition de détention am lan la chambre individuelle la nekk wala chambre bi nga xamante ni ay chambre 37 38 39 40 chambre yi nga xamante ne ay 8 personnes 12 ñoo fay nekk. wala chambre 9 wala apala nga chambre yu peuple yi. lu ñu jàpp la rek. Mhm. teg la prison nekkul lu yomb. Mhm. muy tey nga nekk individuel. wala nga nekk 20 personnes cent personnes. dara yomb xam nga si dankalikoo daalikoo bi foofu la su neeku. période dañ koy ba sacrifice la. pour chambre indi. lu ma. mais nga indi lu fële nombre de personnes yu mu bokkal chambre mais dara daal rek laa mun a wax mu leer muy muy nga nekk yow kese j'en profite également qui suit vraiment tout et en partie kooku sama papis la maa ngi koy nuyu bu baax moom ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu maa ngi leen di def un gros coucou mm. papis je te fais un gros bisou di la wax ne na mën naa la torop torop ak Ngaaka Blindé aussi Ngaaka Blindé ñoom ñëpp tey sax nañ ko war a jugewaat mais dara leeragul parce que il se pourrait que buñ ko indiwaatee devant la chambre criminelle mm-hmm. ñu ne ñu euh, la chambre n'est pas capable de le juger comme la dernière donc bu ko defee dañu envoyé waat euh, conseil prison d'auto génnaat dooru duggaat si biir. dafa garaaw <laughs> seen bu ñu. ko baaxle de parce que dama am samay xarit yu nga xamante maa ngi leen di nuyu ñëpp encore une fois di ñëpp nag képp ku nga xamante ne caabi daf la féete ginnaaw may ñaan. yàlla euh, daal di def rek nga delluwaat ci sa kër te la la fa dugal bañ fa dugalaat Pape arrête <laughs> jërëjëf Aïcha ñu gërëm la bu baax euh, Papis gërëm ki nga xamante ne moom mooy El Hadj Malick Cissé sama nijaayu bopp Aïssatou waaw tey de li ñu waroon waxtaane rek mooy euh, parti politique yi mooy candidat yi nga xamante ne ñoo mën a dem euh, ca 2019 ku nekk sa programme aspect économique yi ñu waroon ci dalal euh, ki nga xamante ne mooy Abou Wele mais malheureusement ak siwul ba tey mun na xam naa oto yi ñu ko téye wala. abuweele ah, euh, moomu de man bu doon maa yow dama koy baax. waaw man nag da man dama ko dama ko zappé woon mais économiste yi. te <laughs> dafa la koy fekk. abuweele moomu fii la koy fekk. mu fàttali ko daal abuweele moomu. voilà mosul ko fee amee. abu yow ku sikk nga d'ailleurs Malick Cissé moom mu ko kale parce que dañ ma kale. dafa ay économistes mais ñoom ñëpp ils ne sont pas disponibles ñenn ñi sont en vacances mhm. ñu ngi nekk hors de Dakar ñeneen ñi hors du pays aussi mhm. donc moom bokkoon ci ñi fi nekk abu seen xarit la wax leen loolu kii bu ma leen di jaxase xam nga juuma noo sant mu ne la non abu abu suñu xarit la mais abu man maa la tendance <laughs> donc euh, fi nekk ba waaw moom mu nga xam ne mu ngay nelaw parce que sujet bi dañ ko tànnoon ndax lu si mel ne réewu France ki di Emmanuel Macron moom bi muy ñëw ci bopp réew mi dafa indi woon programme bu leer ci wàllu koom li ci mel ne ay prélèvement à la source te yooyu noonu actuellement nii ñu ngi nekk di ci liggéey lu am solo léegi ci loolu nag prétexte bi moo nekkoon tey suñu candidat yi ñu xool ñoom it lan la ñu wa euh, réservé. économiquement parlant lan la ñu indi comme programme indi voilà parce que Ousmane Sonko ñu ngi koy dégg euh, muy wax ci ci wàllu mm-hmm. livre bi. solution solution. moom itam am na ay aspects yu mu ci jël en compte macha allah. Mm-hmm. donc tey sunu économistes yi ñoo gënoon mën a toog nekkoon. Euh, ñu à l'aise toog expliquer ñu bu baax a baax. li ci candidat voilà li ñuy xaar ci candidat yi tout mais comme que demee na ni peut-être semaine prochaine dinañ si delluwaat ak beneen dinañ si dellusiwaat ak beneen invité incha allah. man de du ma du waaye li may xaar ci candidat yi mooy. Mhm. Mhm. fu ma sàmba dee fay ma dem di fa fay. Mhm. ñi nga xam ne ñooy puissance étrangère yi. Ah nekk ay multinationales. ñëw ci réew mi am fi doole. mën a rey secteur u marché lëm marché gël tapé nga fekk fa ñuy jaay géej ñëpp nga fexe ba dootuñu jaay géej ñin ñi ñëw di jënd si yow géej mhm. ñu ne yow éradiqué nga vingt cinq wala quarante maires yoo xam ne dañ doon jaay géej ji marché gël tapé nga fexe ba jaayatuñ géej dem di defi leneen mhm. cuub wala ñuy def ay nattak yooyu pour am feneen fu nu amee xaalis te ñoo ñu chaque jour juuti ñëw ne leen fay leen nangam ñuy fay tey ay sénégalais nga mën a jël puissance étrangère ne ko yow comme que da nga ñëw di investir dina employé douze personnes mhm. te éradiquer vingt cinq personnes doo fay dama lay defal exonération dañu war a xeex loolu mu jóge ci mim réew parce que ñooñu ay puissance étrangère la ñooñu ëpp doole ci koom ñooñu ëpp doole fu ne mais bu fekkee seen réew sax malheureusement loolu yëpp si battre campagne bi la El Hadji mhm. si instant yii nii tous les candidats à la présidentielle sont vulnérables économiquement c'est ça loolu ci loolu ponk boobu parce que ñoom boo xoolee seen wàllu comme bi dañ koy bàyyi ci côté parce que dafay mel ni comme si intéressé wu Sénégalais te Sénégal bu taxawee wàllu koom moo ko taxawee. Mhm. parce que am na kenn ku ñuy ku may waxtaan ak keroog ndax mujjuma seetaan direct Sonko ba maa ngi woon ci daj bi. Mhm. am ku naan man Sonko li mu wax ci wàllu renégoci renégociation contrat pétrolier yi. lu am solo la. Mhm. suñu candidat yëpp tamit waroon nañ ci li mais aussi dañu war a ñëwaat gën a liggéey ci li nga xamante ne mooy patriotisme économique. parce que actuellement secteur privé bi mi ngi dee waaye ñi ndaw ndawaan yi nekk ci réew mi di daan doole les PME yooyu ñoom it ñu ngi bëgg a dee tey jii ñoom ñu ngi xaarandi bu baax li nga xamante ne ñooy mbër yi nga xamante ne ñooy dem jonganteeg Macky sàll ñu liggéey ci loolu bu baax ba sénégalais yëpp. le danger avec les candidats ou candidates Seynabou est candidate. dafay dem campagne. Mm-hmm. bu nekkee yenn réew yu développé yi c' est les peuples. c' est les populations qui pour jox la ne la demal nga déposer caution. Mm-hmm. demal nga battre campagne ñun dinañ la defaral nangam flyers ñun dinañ la organiser le meeting fii da ngay dikk rek wax yow ak sa kaar. Mm-hmm. nga continuer waat. pour un mois di def le tour du pays da dem ci débat télévisé yi. parole dispatchée pour tout le monde. mais fii Seynabou bu bu ko amul faaw on va te donner nous as demandé. Mhm. mais boo nekkee président. wala boo nekkee présidente yow Seynabou faaw nga signal ñu li parce que ñun sax seen géej gi dañ cee bëgg nangam dañu bëgg seen marché bi nangam suñu produit dugg fa moom mu ratifié ko parce qu'elle a besoin d'argent en tant que d'ailleurs c'est ce qui explique ñu naan candidat bii nii candidat tel pays la wala candidat telle personne la parce que bu ñu xoolee jamono ji ñu génn ñu ngi naan ki nga xamante ne mooy Hadjibou Soumaré kii di Alpha Condé ko ngemb yooyu noonu yëpp tamit genre kaay yi nga wax mu koy expliqué mais nag loolu dese nañu wóor hmm. Alpha Condé bu Guinée parce que bi fii bi fii mais des na leer des na leer ndax bi fii ki nga xamante ne mooy Ngoné ndooy nekk ak moom bi fi ñëwee bi ñu ko ko laajee dana du ci yàbbi donc euh, voilà mu nekk nag euh, benn débat bu nga xamante ne nit ñi ñu ngi ciy wax partout et quand quand on parle de de changement on parle de Euh, beneen modèle politicien mhm. wala beneen modelu politique ci jamono ji ñu toll ci mhm. élection atum xam nga à chaque fois bu élection amee ci Sénégal da ngay dégg ñu indi la euh, benn expression bu nga xamante ne xëy na moom la ñu moom la ñu mhm. bëgg euh, jamono ji on parle de de de jeunesse on parle de politique bu nga xamante ne dafay rupture jamono yu maître Abdoulaye maître Abdoulaye Wade ah. ak président bi la moom moo fi woote woon rupture mais apparemment li ñuy ciy gis mu ngi noonu donc bu ñuy wax ci wàllu économie aussi lu jëm ci changement bi ñu bëgg indi ci élection 2019 yi gis nañ Sonko nu mu ko defee ak nguuram mhm. bi yeneen candidat yi itam il devrait suivre ce modèle Pape mu loolu mu defe naa moom moo ñuy éviter li ngay wax ni naan foog nga dem nduróole yi foog mu am foog nga génnee xaalis foog nga jënd foog nga sol nit yi ci ay car et donc ça ça changer ñu teg lépp ci programme comme Aïssatou nu mu ko waxee programme nag euh, bu ñu ko tegee defe naa loolu moo war a nekk euh, sénégalais yi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo yor suñuy carte électeur war a dem ci urne yi voté ci programme la ñu war a xoolee nit yi euh, lan mooy def seen différence tey ji bu ko indee ay mhm. solution teg ko ci lu jëm ci wàllub économie ak vie sociale ak ak lu ni mel mhm. keneen bu indee leneen teg Khalifa Sall moom itam mhm. indi beneen programme jëm ci wàllub économie yooyu yëpp bu ñu ko tegee xëy na ah. dinañu mën a xayma bu baax a baax ana kan la gën ñoo doy ñu fal na dindi li ngay wax nii di euh, dine à chaque fois bu élection amee faw nga wut xaalis pour di financer ay maire ñuy solu ci ay et puis man voilà parce que boo xoolee mm-hmm. euh, kerum dimanche parce que xoolaat naa yenn extrait ci internet bi gisuma fenn fu nga xam te ne da nga gis ay euh, groupement de femmes taxaw niroole et tout ça lépp yaa ngi leen gis ñu def ñu toog et tout discipliné voilà discipliné peut-être nag sax am na ay ay ay ay ay ay nu sax ay pastef euh, yenn région yi uh-huh. Diourbel ak yooyu noonu mais loolu yëpp feeñul parce que li ñu faral di gis ci suñu candidat yi li ñuy gis mbumbaay bi jigéen ñi tàccu fii da ngay leer bale foofu day flagrant nga xam ne kii dañ ko joxe Malick Cissé derrière <laughs> voilà da ngay fii joxe nañ nit ku nekk 2000 francs sandwich wala c'est un coup sandwich rek des fois voilà wala wala nga sandwich nga nar ko jox 2000 francs te loolu yëpp c'est un coup bu nga xamante ne tey jii am na fu mu war a dugg fu nga mm. xamante ni dina gën a suqal lu jëm ci cours yooyu noonu bëggoon naa mm-hmm. nga ñëwaat ci benn mardi peut-être parce mm-hmm. que boo xoolee El Hadj Malick euh, élection wu ren yi dafa gën a Euh, yokku ci côté xaalis parce que mm-hmm. caution bi naam wàññi nañ caution bi sax 30 millions lañ koy jëlee nañ ko 60 65 65 wàcce ko ba mais ku leneen lu mu yokk ci ku mooy parrainage bi faw candidat yi dugg ci biir région yi faw ñu dem wàcc loolu itam bëgg naa un jour nga ñëw fii balaa balaa ñuy euh, dugg ci campagne beeg yu ni mel ñu waxtaanee lu jëm ci euh, coût yi nga xamante ne kon ñi nga xam ne ñoom ñoo di candidat yi ñu ngi koy génne di ko def ci ci kii benn précision rek moo bëgg def c'est-à-dire génne na livre solution mhm. mais Père Boudiagne Atepa aussi génne woon na livre peut-être différence bi mooy Sonko livre bi présentation populaire bi voilà présentation populaire moom lu ñu ko war a nangul ndax keroog soo xoolee ah question yi ñu ko doon posé dafa répondre indi na ay solution yoo xamante ni moom la jàpp ni wàllum koom-koom su ko Sénégal defee mhm. dinañ avancer dinañ yoo xamante ni ah. Sonko def noonu def na bu ko ma ne li ko def noonu place de l'Obélisque. ñeneen ñi loolu la waroon def. bu ñu ko defee ñu bëri journaliste yi bu fekkee jëluñ journaliste yi seen xarit yi ñu jël ay journaliste yu leen posé ay vraies questions. ñu bari seen carrière fa lay jaaree booy maa la wax lii. loolu nga wax et puis il faut économiquement. il faut ah que ñu am ñu éradiquer les fonds politiques li li uh-huh. indil gàllankoor Khalifa Sall. li indil yenn président yi. parce que on ne comprend pas ces genres d'histoire. caisse noire mm-hmm. fonds politique c'est quoi président fonds boo xam ne loolu neex nga koy utiliser. Venezuela le député qui achète du café dañ koy def ci site bi. ci mission bi mu nekk bu jëndee café 1 euro dañ koy mentionné ni jënd na café le popula euh, la population lambda bu toogee ci site internet day xam ne député ci mission bu mu dem doxi nangam jënd na fa café 1 euro mu ko jëndee fii facture bi ñu photocopier ko dugal ko. xam nga loolu yëpp question d'organisation la mais ñun mën nañu wax ne suñu administration en général moo manqué organisation. loolu tey mën nañu wax mu ñu gàllankoor ba tey jii parce que yow da ngay xëy rek benn exemple laa lay benn extrait de da ngay dem 10 heures. nga dem de 8 heures nga dem déposé ko 10 heures mën na génn mais dañ lay renvoyé ba lendemain bi. procédure administrative yi day jël temps procédure administrative yi yaa gis koo xamante ne day wut casier judiciaire wa foog mu déplacé wu ba si région bi. je pense que Sénégal war na dépassé loolu. Mm. ça risque d'être compliqué en tout cas dinañ ci àndaat ak yow Aïssatou Diop Tall ndax euh, c'est une question bu nga xamante ne faw ñu dalal fi ku xam-xamam. amaat ci jëm ci wàllu koom ngir ñu mën ci waxtaan euh, bu baax a baax. Euh, da ngeen di des ak ñun ndax xam na yeneen gan yi nga xam ne ndax nañ leen dalal ci plateau bi bu fekkee waa régie mën nañoo may une petite pause ñu daal di kon dalal Ziggy ki nga xam ne moom moo di invité am ñu dem benn clip. dellusiwaat bu nag. Mhm. loolu laa bëggoon wax nag. nga bëggoon. ñu seetaan benn clip. <laughs> si ngam <laughs> ana Modou Macky mi waxoon na singom xaw ma mooy kan ak kan <laughs> man Modou Macky dan laa war a invité sa yow nga ñëw foo toll Modou Macky ci réew mii ba xof sonn